I don't know. ibaara Nesirin sëriñ bi nee na mbokku yi mbokku taalibe yi eh, nee ñu gën rek di ndokkale ñëpp rek ci bes bi mi nga xam ne nee na pajum aajo la nee di bes bo ne nee na eh, la am nañ ci yàqit bu wër de yéen sëñ Ismaïla fa sëñ mm, nee na boobee sëñ Cheikh ak sëñ Cheikh seen boobu ñun ci gu métti lañ ñëwoon suñu borom dikkee ak mbaaxam ne jaare ko ci sëriñ Touba eh, nee feeñal sëñ Ismaïla neena mu defar sëriñ bi oh, nee sëriñ bi defal mi nee na xam ngeen ne lëndëm bi wàññeeku na nee na kon la soxna sa waxoon la rek nee na làmp njàmbur yi de buñ takkee nee na leer wi de dana yegg fu sori nee na làmp njàmbur yi nag tàkk nañ de nee na ku ko weddi nga xool jumaa ji nee na boo gisee sooroor yi nee na nga xam ne lañ waxoon am na nee na ndax séeréer moom nee na yàlla dafa dogal neena na lu bëri yomb guddi ko bett nee na ndax nag eh, nee na baatin dafa yàgg ak ñun nee na waaye nag nee na baatin bi la ci ëppoon yëpp nee na dafa jemoon ci seytaane nee na ak ca bakkan nee na looloo waraloon nee na waaye séeréer nee na bëriwul lu koy bett nee na lu fi feeñ ci lu baax wala ci lu mun a doon nee na da dégg ku wax ne am na ku ko waxoon ci at sàngam nee na tey lii ngeen gis nee na am na nañu ko gisoon de waaye nag nee na lañ gisoon nee na xamutoon li ñu doon ndax nag lu booba l'islam eh, nee na yegg melul nii ci ken hamutone, te it kenn xamutoon ne dana mos a dem nag ba yegg fii nee na kon loolu ah, nee na kon nañ ci sant sëriñ bu baax eh, di ci ya. nga wax ci ah, ak ñun ci bi nee at bu jot ñu ñëw ak bokk ci ñun ak gàmm gi yendu feek ñun nee na fanaanuñu ñun di daj coono yi te loolu yëpp nee na yàlla de wàcce la ñu nee na kon nag loolu yëpp nee na jaayante de moo tax ñu di ko def nee na waaye jaayante booba nee na yàlla bum neen àddina ak àllaxira nee na kon yàlla loolu yàlla suñu borom faj ci seen aajo dimbale uh, leen ba seen yaakaar nee na bu mu tas àddina ak àllaaxira ci barkeb sëriñ bi eh, nee na mbokku taalib yi nee na li leen di xamal de nee na gàmmu gi nee na da di spécial eh, nee na tey dafa am lu ma wax sëriñ bi dama ko ne sëriñ bi sëriñ bi e nee na ñu dox nag mu ngi màgg de ne nee na xam nga li tax ma ne day màgg nee na tey nee na bi xéewal yi ñëwee tey ci ci ci bëccëg nee na damaa gis xéewal yi nee na ànd ak protocole te nag ñun nag nee na it ku képp ku ku ànd ak sagoom nee na war nga xam ne fépp fu protocole yegg nee nag màgg fa yegg nee na kon ndax xam ngeen li may wax nee na protocole moom nee nag maam kooku moom nitub saayir moomu ko nee na kuy door a tàmbali nee na am moomul protocole te nee na xewalu yi nee na dafa ànd ak porotokol nee na ñi fekke loolu nee na am na luñ ci xam te nee na loolu nag nee na da di misaal rek nee na li may wax nit ñi rek nee na suñu borom ci mbaaxam nee day wax ak ñoo ko neex. anam ka nee na ci anam yi nga xamne ne. nit mom yenn say du ko fo ndax xam ngeen ni lolo nee gis rek. nee bit rek. nee mën mun na ko xép japp ne mom loolu du dara. nee waye ñun ñi nee na ñi ñi nga xamne yalla dimbalen ci doleb sëñ touba nee barkep barkeb cheikh Ndigal. nee xamna ne nee na loolu moom am na lu mu doon nee na amul ixtilaaf nee na kon nee na mbokku taalibe yi eh, nee na kon na xel yi gën a dal nee na li ma doon wax biig rek ci gu ci waxtaan yi ci di ko waxtaan ak mbokku taalib benn di ko wax ne lii nee na billaaxi wallaaxi tallaaxi nee na kenn mënut a ko tere nag mu jëm kanam nee loolu amul ixtilaaf nee ñun ñi ñépp nee na sëriñ bi defar ñu nee na buñ tëddoon ci suñu lal sax nee na wuute wuñu nit ñi sax nit ñi di ñu fekk si nee na loolu amul ak xilaaf nee na sëñ Touba. nee na sëriñ bi daf maa mosa a wax lenn ne ma est-ce que xam nga lii may cër ci sëriñ Tuubaa nee na ñetti yi rek la nee ki jàng ba motal nee na ki liggéey ba matal nee na ki liggéey ba matal nee na ki ñu yërëm ak ki ñu bëgg nag neena billaaxi wallaaxi tallaaxi nee na bi may wax loolu xam man fi ma féete ci ñett yooyu te nee na nag sëñ Touba ah moom ku mu bëgg moom nee na moom bu la neexee ah, ngay ya, nelaw ya, ya, te xam ne mbir day dox noonu loolu amut xilaaf nee na dafa am ku fu newoon nee na ko yàlla yërëm te yokku leeram nee eh, na Cheikh Béthio Thioune Amadou du nee na du mbëggeel rek képp. ci la nee na mbëggeel googu rekk ci la tojee àdduna. nee na man nee na sañ naa waat man bokk naa ci ñi sëñ Tuubaa bokk bëgg. nee loolu amul ixtilaaf nee na defuma dara nag. nee na nekkuma leen nit nee na dewuma fen nit waaye billaahi wallaahi tallaahi sëñ Tuubaa bëgg na ma. nee na kon yéen ñaan nag man ñun ñaa ñun ñaan ak moom na suñu xel dal nee na nañ gën a laxasaayu rek gën a doon ay taalibi rek nee na loo gis neena na lum gaaw gaaw moom léeg-léeg ñu làbbali ko rek. nee kon loolu rek moo waral soññe gi nee na lii moom amuñu ci sikki sàkk fenn yoon te kanam la jëm loolu moom amul sik nee na buñ bañoon it mu jëm kanam loolu amul ixtilaaf nee na kon loolu nee nañ ko xam ya nee ndax nit day baax boo nekkee ci mbir xëy na xam lépp nag waaye nee na am na war nga koo jukki xam ci nee na ndax nag nee na li yàlla def ci doomu aadama yépp nee na dafa am loo xam ne nee na man de man ci laa jàpp ne moo ëpp solo muy xikma nee na moom la tubaab di woy sagesse nee na ma nee na mooy dimbale doomu aadama nee na mu mun a am dégg gu sori nee na mun a am gis gu sori nee na mun a am yég yëg gu sori nee na kon nee na loolu moom ku ko am nee na boo waxee boo waxut moom raw nga nit ñi. nee na nekk ci nit ñi. nee na jotaay gu mel nii may wax e nga di ci dégg leneen lu bokkut ak li may wax e nee na kon xam nga ne yow e am na fu yàlla yegg ak yow te suñu borom nag kaa dafa fekk ne léeg nit ñi ñoom fi ñu yàlla ak fi yàlla ne dafa wuute. ne ndax su ma boo waxee nit ni yàlla eh, nee na ñi gën a bëri yëpp ah, nee na dañuy xool asamaan nee na dañuy di xool yaakaar ne yàlla ci kaw asamaan la te yàlla dafa wax ne nee na buum bi nekk ci diggante ci xol yi nee na moo ñu ko gën a jege kon yàlla suñu borom moom mu ngi wax ak ñun nee dafa fekk nag ñëpp mënuñoo dégg nee na ñëpp mënuñoo dégg ndax mayuñu ñëpp dégg yi nee na bi may door a seex nee dafa am jafe-jafe ju ma amoon nee na ba loolu bëgguma def mer nee na fekkoon may tukki neena ma jóg dugg oto nee na bi ma duggee ci oto bi nee na oto bi daw mu mel ni damay dégg nag picc yi mbir mu lu wax man ci kaw asamaan di ma wax sëñ gàbbu nee na lii nga yor de nee na yërmande la de nee na la de wallaahi azim nee foofu laa jóge meratuma fenn ba fii ma toll nii nee na ndax suñu borom nee na képp ku yónni ci nit ñi boo yërëmul nit ñi boo sàgganee di nga def ay nee na ndax nit ñi moom nee na mënuñoo jékki-jékki rek nangul la nee na loolu moom kenn amu ko nee na bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne mooy borom guddi gu tedd gi eh, nee na amul lum dajut te nee na ñi ëpp ci nit ñi ay mbokkam ñoom ñoo ko doon teg ci ay tiis nee na te moom mostamar te xam ne nee na saa ne alkane moom am nee na kun ñu nit nee na sañu ñoo mer de sagem mer Ah, boo yoree mer boo xam ne nee na alkande mën na ci aju daa am loo war di daw nee na kon seen taalibe li ma leen di wax moom nañ mun a nangu nangu àttan lépp lépp lu ñu mun tëgg nañ ko yóbbu nee na luñ ñu wax nañ ko yóbbu ndax ñu ñoo ñoo ñoo ñoo tooñ nit ñi de ndax xam ngeen li tax ñoo tooñ nit ñi ndax ñun ñoo indi lu nit ñi xamutoon nee na ku fi indi lu nit xamut yaa leen tooñ nee na lépp luñ la wax it ak luñ la mën a def da ko mën a yóbbu rek kon nee na. nañ gën a ànd ak muñ te xam ne lii ñu yor eh, nee na mission la de nee na képp ci ñun wallaahil azim nee na tey li may wax nee na firnde laa ci am de nee na sëñ Tuubaa moom moom tànn nga mun maa fekk ci liggéey bi yaam na 2016 de kan moof noonu maax nee na damaa toog ci sama ëttu kër ci bés dimanche o xooyele faka nee na na nii jib woote gi foofu ca ñu dëkk xooy bi li ñuy wax xooy mooy woote yooyu ñuy def nawet ci ndënd ñu di ko tëgg yi guddib dimanche lañ koy tëgg ko xam xooy xam nga ne guddib dimanche lañ koy tëgg nee na ma toog nee na de sëñ Touba garu Touba de mo ñëw ci sama loxo. nee na ma dugg ci may ñuy dugg ci biir këru Njaanjaay muy ubbi buntu yi. diw ma won ñi nga xam ne ñooy samay nit. nee na gu bu mu buntu ne ko diw mi mooy sama nit ci kër gi. nee bi bi ma dellusee ci fi ma toog. nee ma xemmaliku ne man wa man kan man xanaa damaa bëgg sama sago wala dafa am lu ma ya seex ma nee na bi ma seexee nee na ba gis nit ñi jébbalu nee ci nit ñi nga xam ne sëñ dañ ma moo ma kon na ngeen xam li ngeen am nee na sëñ mo moo leen tànn nee na man wutu su ma leen sëriñ bi moo moom liggéey bi dénk ma ko ne toyeen leen ko kon nee na nañ góorgóorlu bu baax te li lu war xetali adina lepp kon kep ku ngeen gis lo wet wet sa keur yow mi taalibe jappal ne yow la seigne touba tan nga defar keur gogou yow nee lolu amul ikhtilaf nee kon ñun ñi kan dama gëm ne yeen ñi ñep nee ay buntu aljana ngeen ci ñi ngeen dekkal yeen dafa fekk nak lolu nee na pour nit xam ko dafa jafe ñëpp munuñ koo xam nee na looloo tax jafe-jafe yi mu mun a ñàkk nee na te nit ñi bu ñu xëyee ngër goo xam ne nee na murit mosu faa dëkk rawatina Baay Faal nga xëy doon Baay Faal da ngay wax dara dara nee na loolu mënut ñàkk na faaw ñu wax la dara na ndax ñoom xamuñ li xew nee na man moom wallaahi azim rek xam naa li xew de. nee na góor ga dafa doon wax ne nee na ko bugg a xew dangay fexe xam li xew nee na waaye man xam naa li xew de li xew moom xam naa ko nee na lépp ci mbaaxub suñu borom ak sëriñ bi lépp jaar ci sëñ Cheikh Ndigal Sène nee na lépp loo gis nee na jagle boo gis dafa am buntu nag nee na kullu shay'in sababun nee na suñu borom a ko wax de nee na boo gis rek am na la ko sabab kon loolu munta ñàkk kon nañ gën a góorlu bu baax xam li ñu am bu baax te yërim ci nit ñi te di leen muñalit bu baax a baax te xam ne ñun ñii ñooy ñii sëñ tubaatan war a jël xetal nit ñi àddina ak yomal xiyaam gën jëm sa ëllëg nee kon yalla nu suñu borom kattanal yéen taalibe yi ñëpp nee seen goor ak seen jigeen nee ñu ngi sant ñep nee bes bi niñ ko tewé ren nee and ko kook wër nee na sutura ak xiwal nee yalla suñu borom defal yokute bu sax dak ci barke faw rek ñu man faw ñu yër man lool nañ ci goor wolu bax jamanu gi fii mu toll nii nee na na ñaan suñu borom nee na am na suñu mbokk yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bu ñu naan Palestine te ñu nga ca si jafe-jafe te ñun ñun ay jullit lañ ñoom ñu doon ci ay jullit nee lu mën di xewit ndax ñoo tooñ ndax tooñuñu waaye yàlla suñu borom fay coow loolu rek def fi jàmm nee na ndax jàmm moo xëy xëy ci àddina nee na la ñuy ci àddina yépp muy suuf si wala alal walla lu mun a doon rek jaru ko de nee na jaru ko te te nee nañ ñun ñii ñëpp di déglu information guddi yëpp yéen a ngi dégg la fay xew te nee na ay nit ñoo yëkkati lañu di rey ay nit seen bopp nee na kon lépp ni ngi xëccu àddina rek te loolu nag xam ngeen ne jaru ko nee na kon yàlla nañ suñu borom musal ci loolu nee na suñu dëkk bii yàlla ko suñu borom nee na dëkk boobu am loolu nee fay nee danañ ñu musal ñun ñëpp ndax daa faral dañoo faral di wax seytaan du yem ci bopp nee na la ngay gis loolu yaakaar ne mos mënta yegg si fii nee na kenn xamul fu mun a yegg nee na nañu ñaan ñun ñëpp yàlla ko yàlla fa bañ a ku tooñ ak kuñ tooñ nee na kiy àtte moom boo bëggee nag coow li mun a taxaw bu lijjante ka tooñ ak kañ tooñ nee na ku tooñ ak ku te nee na neexut a xàmme rawatina ci loo teewul xamoo ci lim doon nee na yàlla rek a xam nee na yàlla ko suñu boroom fay nee na defal ñu jàmm ñun ñëpp nee na defal ñu yokk di bu sax dàkk nee na képp ku fi ñëw ren nee na yàlla déwén ñu mbub nga te booy ñëw yàlla nga yokku nee yàlla sa poos yokku nee yàlla sa daraja yokku nee na yàlla sa wóor yokku nee na yàlla sa sutura yokku sa aajo di faju nee na suñu borom defal la tawfeex làq ñu ñu ñëpp ba yàq yeggu ci barkeb sëñ Cheikh Ndigal nee na jërë ngeen jëf nee na gërëm na ñëpp sant na ñëpp na ñëpp dëkk ñaan te faj aadu yi